ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di wax ne lu ñu fi dajale tey jii nii rek mooy bi ngeen gisee suñu autorité yi génn wax ci orientation bi nga xam ne moom la son excellence monsieur le président de la république joxe maanaam lu jëm ci wàllu subvention ñu xoolaat nan lañ koy tasaaree ci client yi nga xam ne ñoo ci bénéficier wu dégg ngeen suñu ministre madame Aïssatou Sophie gladiment génn na wax ci lu tax ñu war a changer nu ñuy subventionner yan secteur lay concerner nan lañ koy defee ak ñan lay concerner kon boog ñun bu ñu génnee nii tey dañu ñëw leeral pour wane nag loolu nan lay demee ci wàllu facture courant yi nga xam ne mooy concerné suñu client yi nga xam ne Mamour wax nga dëgg yéen rëkk a tax ñun ñu nekk yéen rëkk a tax ñuy gé ñuy xëy suba ngoon di sonn loolu nag man en tant que directeur général de Sénélec dama ñëw taxaw pour continuer communication gouvernement boobu pour que client yëpp gën a xam fii ñu jublu ak lii ñuy def lan la ba nii nga xam ne client yaa ñu ko doon jàppale dina témoigner seen satisfaction mu mun a continuer ndaxte service public de l'électricité Senelec ak client yi ñoo ko bokk ñoo ko moom loolu nag bu ñëwee tey jii nii dañu tolloon fu nga xam ne en 2000 suñu xoolee client wu Senelec yi tey jii nii toll nañ si ñaari million ak ñeenti junni ak juróom benn ak juróom-ñeent yi nga xam ne junni yi nga xam ne ay client lañ mais ci loolu nag bu ñu jëlee client yi nga xam ne ñoom ñooy client yi nekk lu ñuy wax transsocial maanaam yi nga xam ne ñoom dañuy soxla courant uniquement pour seen dund uniquement pour seen jàngu doom ñooñu toll nañ ci million ak junne ak juróom fukk ak juróom ñeent ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn client yi nga xam ne moom la ñuy wax tranche social tranche boobu nag président daf ñu wax lu leer daf na ñooñu seen facture walul yokk benn dërëm moo tax bu ngeen xoolee nu ñuy defaatee ajustement bi client yooyu bu ñu maintenir seen consommation yi ñu amoon seen facture du si changer dara moo tax ma leen di ñaan ñooñu nga xam ne ñu ngi si tranche sociale bi képp ku ci gis sa facture changé te yaa ngi ci même niveau de consommation bi ñaan naa la nga ñëw sama bureau dinaa ko ubbi fii ak application bi nga ñëw taxaw ne DG sama facture bi kat maa ngi nii si cent cinquante kilowattheures yi changé na lu tax président wax ñu ne nañu conseil nañu protéger ñooñu ndaxte dañu seetlu ne bu ñu xoolee subvention bi ni ñu ko doon ñoo ñooñu seen facture mu ngi toll ci ñetti junne état bi lu mu leen doon versel ci subvention juróom-ñetti téeméer la ak à peu juróomi téeméer ñu xool ne clients yi nga xam ne ñoo gën a am doole ñoom mën nañ dem sax ba l'état ba état bi versel leen lu toll ci lu ëpp fanweeri junne donc ñu ne loolu nag il faut ñu changer waat ko ndaxte subvention bi ñu ko moom wa ñu ko war a moom ak ñu ko yellool mooy ñu nga xam ne ñoo gën a néew doole loolu mooy exercice bi nga xam ne moom lañ defaat pour continuer di protéger ñi nga xam ne ñoo mën a am ñoo ñoo néew doole wàññil si ñi nga xam ne ñoo gën a am doole ñoo gën a am possibilité fay loolu nag suñ ko defee c'est parce que dañuy xam ne Sénégal si lu bokk si suñu valeur yu gën a mag mooy solidarité solidarité nag fu ñu ko déggee mooy ñu jéem a fexe ba def ay mécanismes yoo xam ne ak dispositifs yoo xam ne toujours dañuy protéger ñu gën a néew doole te état bi continuer aussi di jàppaleen ñëpp parce que lu may rappeler mooy subvention bi kenn dindiwu ko dañu wàññi si ñu gën a am doole pour maintenir ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole mais état bi mu ngi continuer di subventionner ñëpp d'ailleurs président wax nañu ne nañ def étude pour xool nan lañ koy gën a mën a changer ba nga xam ne dinañ dem ci yeneen pays nuñ koy defee maanaam dañuy cibler une couche boo xam ne moom du bokk ak ñeneen ñi tarif dañuy am tarif social am tarif normal ku nekk ci tarif social bi xëj na mën nañ dem sax ba ko ñu ko yenn dëkk yi defee ñooñu duñu fay courant dañ leen di jox gratuitement courant ndaxte ñooñu comme nu ma ko waxee sànq courant bi dañ koy soxla pour seen jàngu doom courant bi dañ koy soxla pour garder li nga xam ne mënul ñàkk si seen kër uute nag ñi nga xam ne dañuy jël courant di ko utiliser pour confort maanaam pour seen nekkaay comme nu ma ko ñeneen yu waxee loolu nag ku ci nekk ça veut dire que am nga loo xamante nii mun nga ko fay donc étude bu ñuy def dina dem ba foofu noonu nga xam ne léegi dañuy génne ñaar ñi ñëpp détaché leen dootuñ bokk même grille loolu ñu ngi si te bu sooba yàlla dinañ ko continuer kon donc mécanisme de solidarité boobu ñu def moo ñu permettre tey jii nii ñu mun a yegg si fii ba déterminer beneen grille bi nga xam ne lu bees la lu may fàttali rek mooy que ni yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndaxte gis nañ Senelec fu mu jógee woon en 2012 ak fu mu yegg si léegi ni tey am nañ production bu doy aujourd'hui fexe nañ ba nga xam ne courant bi du ñuy wax autoroute électricité yi wër na Sénégal yëpp gis ngeen bër ki démb kii nañ bu tam poste Tambacounda bi mettre nañ ko en service mettre nañ en service poste Kolda mettre nañ en service poste Ziguinchor léegi tey ñu mettre en service poste Tanaf donc ça veut dire que autoroute yi wër nañ Sénégal yëpp loolu dinañu permettre ñu gën a mun a gaaw pour yóbbu électricité yi si dëkk ak dëkkaat yi loolu moo tax sax bu ngeen ko xoolee en 2012 1648 localités kese lañ amoon yu am courant tey jii nii à mai 2022 ñu ngi si 5308. ci wàllu autoroute de l'électricité yokk nañ mille cinq cent cinquante deux kilomètres avec investissement boo xam ne dem na si quatre cent milliards loolu yëpp nag suñ ko munee c'est parce que état moo ñu jàppale état moo ñu pousse mais surtout client Sénélec yi ñoo ñu def confiance ñoom ñooy fay seen facture ñoom ñoo ñu accompagner pour lii nga xam ne muy mission service public de l'électricité ñun ñoo ko bokk ñu mun a continuer lii am nag dañu jàkkoonteel ak lu ñuy wax Covid ak guerre Ukraine bi ndaxte ñëpp gis nañ nu prix carburant yu yokkee ci àdduna bi yëpp moo tax nag ñu ñu toogaat ci suñu biir xalaat ci ndigalu président ne au lieu ñuy répercuter yëpp mun nañ développer benn mécanisme de solidarité boo xam ne du am impact ci clients yi nga xam ne nii ñoom ñooy gën a soxla courant bi mais dinañu permettre programme yi nga xam ne moom la ñu am surtout muy accès universel à l'horizon 2025 ñu mun si yegg fi ak gaz bi ak pétrole bi di ñëw nga xam ne su boobaa inflation bii ñu sonal si wàllu produit pétrolier yi dootuñu ko am ndaxte day fekk lii ñu soxla pour dawal suñuy centrale pour dawal groupe yi mu ngi fii si biir Sénégal lañ koy jóge loolu moo tax ñu développé mécanisme bii te yaakaar ne dinañ gën a continuer suñu compagnonnage ak suñu accompagnement avec les clients de Sénélec yi nga xam ne ñu ngi leen di ànd ak ñoom ñu leen di sant di leen gërëm 2016 2017 état versé wul compensation la compensation était nulle pendant ces deux années la loolu lu ko waral si bu ngeen seetloo mooy jamono boobu si lañ amoon prix combustible yi nga xam ne si leen gën a wàcc donc 2016 2017 l'État versé wul compensation et donc loolu nag condition yooyu ñu amoon bés bu taxawaatee ñu ñu delluwaat compensation bi mu ñu annulé ko walla aussi fii ak suñu pétrole ak suñu gaz bi nga xam ne Sénégal lay jógee yegsi ñu permettre ndaxte comme nu ma ko waxee depuis mille pratiquement 14 Sénégal Sénélec pare na. bu ngeen seetloo bu ngeen xoolee courbe bi depuis 2014 si la si la coupure yi wàññeeku donc am nañ machine yu war a doxal am nañ machine yu nga xam ne taxaw nañ pour baisser léegi nag lu ci des te luy déterminer mbir mi mooy le combustible le combustible nag malheureusement maîtriser wuñ prix baril bi maîtriser wuñ fluctuation dollar bi moo tax fii ak nag suñu gaz ak suñu pétrole bi di ñëw dañuy nangu rek dawal solidarité jàppalante pour que aujourd'hui ñu mën a protéger ñëpp waaye par rapport ak ambition yu président am pour si secteur bi ak ak ambition yi nga xam ne moom la PSE décrire tarif yi yeggaguñ fu ñu soxla mais loolu yëpp ñun xam nañ lu ko waral pour répondre à la question de l'autre aujourd'hui c'est juste une situation conjoncturelle à laquelle nous devions faire face en faisant appel à l'intelligence des et à la valeur de la solidarité. L'ajustement de la subvention de 100 milliards, effectivement, cet ajustement-là permettra à l'État de baisser la subvention de 100 milliards en 2023. Mais ces 100 milliards, comme Madame le ministre l'a expliqué, ont destination pour protéger les couches vulnérables dans d'autres secteurs, les bourses de sécurité familiale, la santé Donc l'exploitation du pétrole et, des, et, du gaz, nous l'attendons parce qu'aujourd'hui nous sommes prêts. À titre d'exemple, la centrale de Bel Air de 90 MW est aujourd'hui complètement convertie et disponible pour pouvoir fonctionner au gaz. Donc dès que le gaz disponible, nos centrales nous euh, des échos, la garantie FMI a eu la garantie que la, prêche, la, la subvention sera supprimée. Bon, ça peut-être c'est une question qui est destinée au ministre des Finances bien de l'économie, mais ce que nous pouvons constater et ce que nous comme instruction et que sur les planches, c'est que la subvention est maintenue au niveau que nous avons indiqué pour l'année 2023. Donc le, les clients continueront à être protégés et les couches vulnérables ne verront pas de hausse de leurs tarifs. Monsieur Mané de Sud Quotidien, les nantis subventionnent les démunis, un mécanisme pérenne Est-ce qu'ils ne sont pas doublement pénalisés Non, les nantis ne subventionnent pas les, les plus démunis. 2012 bu président di ñëw ñaari question rek la ko doon laaj courant amul te dafa seer léegi réglé nañ problème mu courant amul waaye nag dafa seer bi lañ mënagul ndaxte dafa seer bi moom lu koy yokk rek moo moo moo ñu sonal mooy pétrole bi ak gaz bi te loolu incha allah ñu ngi yaakaar ne yàlla nañu yàlla defal sutura rek ba ak jàmm ba nga xam ne pétrole bi ak gaz bi dina ñëw bu soobee yàlla loolu nañ si taxaw walla yàlla dimbale ñu ba conjoncture internationale bi nga xam ne mooy changer toujours mbir mi yàlla wàcceel ñu ko ñu gën a taxaw waaye ku xool fu ñu jógee woon ak fu ñu yegg si mais surtout fu ñu jëm yaakaar naa ne mun nañ am yaakaar xëj na mu ngi ngelaw ñu ngi yëngatu waaye daanooguñu te duñu daanu wu sooba yàlla te loolu yaakaar nañ ne suñu système aujourd'hui fu mu yegg si ak possibilité yi nga xam ne am nañ ko parce que comme nu ma ko waxee léegi territoire bi yëpp maaye nañ ko ak autoroute électricité yi loolu mun nañu permettre ëllëg bés bu ñu amee ay possibilité te ñeneen dëkk yi def comme ñun développer seen réseau de transport dinañu mun a permettre ak importation yi ak échange yi ñu mun a atténuer en attendant mais loolu nag ñu ngi xaar yeneen dëkk yi peut-être yu ñu wër ñu avancer comme ñun nu ñu avancer bu ko defee échange yi dina gën a mun a yokk sur le marché di wap en attendant suñ pétrole bi ak gaz bi di ñëw waaye lu ñu gis mooy que ñun taxaw nañ fu mu toll nii ba nga xam ne bés bu pétrole bi ak gaz bi ñëwee yeneen dëkk yi ñooy ñëw di jënd ci courant Sénégal ndaxte loolu am nañ machine yi am nañ réseau de transport bi te bés bu ñu amee gaz bi ak pétrole bi ñëpp dinañ ñëw seet si loolu moo daan question yu ma yu ma noté woon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp je ne sais pas Babacar ndax amaat nañ beneen bis waaye jërë ngeen jëf